صلاة الذي في كل لزهر وفي سفر أماني على ماهن مع الحبس وأسفر sunu borom subhanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal khalifatul am li tarixatil murdiya Cheikh al Muntaxa suñ borom yagal ko fi bu baax ba naal yeeg yi ko serigne touba si Islam ji wa wabil murdiyati xaasatan suñ borom defal ko lu kawé ndortam te ñu and ko ak mom di ñaanal kilifa diine yëpp ak kilifa haade yep di ñaanal ki ni fa dajale tay jii di sunu serigne ñun ñep jeng suñ borom yagal ko fi bu baaxa baax ban yag taxawal jotaay yu melni te defu fek mook mam si ñen ñi wajur si ñen ñi ba mustafa jeng mom tam suñu borom may ko ak wér man nak dama bok ci bir daara ji kon man na ne kaddu gi may waxe kaddu dong la bo xamne daf koy wax ngir soñu ay moroomi dongam yuñ bokkon di jang ndax daara ji kenn mënu ko tuddu te do ma tuddu kon ma nga sa bir ni yu soññee nak moy nopp gi tamit droit boobu noonu laa amee wax na noppi kàddu gi tamit jël ko du xam-xam ndax nu ëpp xam-xam fuuf ñu ngi ci jotaay bi ñu ñu gën xam li ñuy wax ñu ngi ci jotaay bi waaye taamu la ñu santuñu ko ñu di ko def damay faral di wax ne ngay baylat jeng wala daaray baylat jeng bo de xol daara yi gën a ci Touba dang koy cité moy dang koy tuddu ndax lim produire maanaam lim génne ci ay nit ñu am tour ci ay nit ño xamné ñu mokal la na jamono ji ñukoy gis ci dëkk bi nak. nak bëri na fi lool ay bërëb yu ñuy jànge waaye qualité bi ñuy jàngalee nga faxe xale bi mokkal alxuraan ba pare mal mel na war a mel ba pare jàngale téere sëriñ bi yaakaar naa yombul fii. ndax bëri waa na sama classe gi ñun leen kese leen man mooy jàngale alxuraan mais nag jàngal xale bi alxuraan ba pare sol si moom xam-xam loolu yombul te sëriñ Abdou Lahad yàlla defal na ko cër boobu ngir yàlla ñu noppi. dama koy yalwaan ngir yalla ñu nopp li nak dembu rek ak barki dembu demon na ay ndaje yu melni yo xamne ay donga yo xamne dañ doon jangé ci bërëb juggé fa di amal bis bu melni ma am yu fa jëlé nak expérience bobu am lu ma fa jàngate dinaa ko dolli mbooloo mi wala dinañ ko dolli wante ñun mbooloo mi am na yoo xam ne tamit neexuma fa dinaa ko wax mbooloo mi bëgg ñu moytu yooyu ndax yooyu day ñàq day yàq mbooloo ab jàngalekat sëb sëriñ daara ku mat a fonk la ku mat a jox cër la ku mat jox wàccuwaay la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ban ko laajee ne ko sa waajur ak sab jàngalekat kan ngay gën a fonk kan ngay gën a teg si kaw dafa waxoon ne sab jàngalekat mooy sama sëriñ daara uqaddimu ustaasi ala aqi walidi loolu Sëriñ Tuubaa wax Sëriñ Tuubaa dafa wax ne donte bu dee àq la damay jël àq ki ma jàngal jiital ko si sama aqi waajur ñu ne ko Mbàkke Balla moo tax mu ne kële jàngalekat ba kooku day defar sa ruu ba nga mën a gën a jaamu yàlla xam li la war sa digganteeg sa boroom ba nga mën a jëflante ak sa borom waaye ba nga mën a jëflante ak nit ñi kooku ruu lay defar bu dee waajur nag li muy defar si moom mooy day defar say sa yaram ba nga ba nga ba duuf di la jox ngay lekk di la solal di la di jox ngay naan ba bu ëllëgee ñu mën laa xool nga mën a dund kon àq jee moo gën a kawe àq jee donte àqi waajur lu am solo la kon ab jàngalekat kooku kenn amut fayam ab jàngalekat kenn amut fayam man allamaka arfan wahidan fa huwa mawlak kep kula jangal ben araf waxuma ben araf waye ap téere moy kamilu arqan lay sol sundan kon koku ep na ben araf te mbokk yi ñun nek nañ fi ba fi kenn ku nek su ñun rek ak ji sa wajur warlo ak baylat man na ne 100 pour amna ño ko am ne at ba at la seen di ñew fi gis baylat nuyu ko am na ñoo xam ne nekk nañ ba jóge fi li ñu ñëw fii si daara ji seen waajur lu lu lu ñuy wàññi la. am na ñoo xam ne nekk nañ ba jóge fi seen waajur mu sotte ko ak bàyyilaat loxo kon nag yow yow yaa mujj nekk mag mujj nekk mu kallaf xam li la bàyyilaat doon defar nga ñëw wëlbatiku di ko delloo njukkal njukkal. Dan nan nan bàyyi xel ne ben araf alquran rek li suñ tuba waxon ben araf alquran rek ku lako jangal war nga ko neexal junni ben araf. léegi nak xolal ki la jangal li ñu woy al huruf al ijaiya araf yi ni fëri Janggal jangal mu nekk 28 lettre ñaar fukki lettre ak juroom ñet mu jangal lako ba nga fëri ijj yëmu fa mu janggal la saar yi ba nga mokkal ko dem ba mokkal alquran ba bind ko koku ñaata nga ko wara fay. waat xaq an yuhda ilayhi karamatan bi taalimi harfin wahidin alfa dirhamin wala aqulu alif laam miim harf walakin alif harfun wa laam harfun wa miim harfun suñ too dafa wax ne alif laam miim mu bu ne benn xaraf la kon alif laam ko jàngale loolu ñett junni nga ko war a fay c'est normal kon kooku kenn amut àqam ab jàngalekat kook ku mat a wormaal la ab jàngalekat kook ku mat a sonn la xool leen ndeysaan day were cekke bu ñu waxee were cekke mooy day ñàkk nelaw ngir lan yéen gone yi ngeen am avenir ngeen am ak ëllëg ndax jàngale dafa bëgg résultat kuy jàngale boo dul am résultat léegi tey ñu ne la fi ñukk dem xoole yeneen daara ndax léegi parents yëpp a yeewu kenn ko nanga bëgg sa doom bu ëllëgee mu nekk dara kon ab kat lu metti la ndax da nga bëgg di am résultat boo bëggee dem résultat nak faaw nga sonn te kenn sik sak wuur si ñun ñii ne bàyyi laat sonn na si ñun defar lañu lu ne taxaw wonu ñu côté bu ne légui nak ñun mbokk yi ñoo dem ba nek ay mag ne dañuy njukkal bàyyi bis bi kep ku si feñ kep ku si gëna a jappal ni da ngay raw sang mas, bul bañ ko la sik bul bañ ko la wax da nga bëgg gis leen ma bul bañ ko la ku la ku la ku la ku la ku la bul bañ ko la ku wax dara yow lan motax ngay def moy alquran teral sub serigne daara motax ngay def ndax ñepp xam ne jamono ji lu bax mo fi gëna a soy wotalu bon nit ñeppay ñew waye so wota lu bax ay benn benn ngay ñew mbokk yi xoolee ñu ñu nekk fi goor ak bay laat ñim jangal wa koñ bi dong la bu ñewul yalla xamna na ne fii ba fële danañ ko bass ba jàkk ja keur go dugg laat produire na fa ab ab ab donga lan moy lool moy ñoo lu baax ñoru leen lan mo leen ñor moy tay bu kenn ben ben ben ben saytane bu doon wota fee ñom ñoy dem yëkkir seen alal joxe fa nak di ndam bëgg ku leen gis te tok tok atum jalla duñ ñew fi siyaara Baay lan motax Ken mbokk lan motax kenn ko ne ba nga jógee si daara ji dem di yëngatu ci leneen jappal ne barke ba nga am fofu jappal ne barke la bul bul jóge si daara ji dem fi ministre rek wala nga fi téere wala nga nang. naa nga ne ah ah baye nga dedet wa sa xel mi lan moko tagat bam ñor ba nga mëna def teer sa xel mi lan moko tagat bam ñor ba nga mëna def ministre sam xel mi lan moko tagat bam ñor ba nga mëna def commerce kooku ka jitu ci yow la moy kala jangal jàngal nak kon sa alal bu doon jundi la jappal ne ñaar téméré war nga ko sédé ñaar tém war ko fa sédé té ñun ñi dong buñ tak woon weer wu nek ñuy joxe kenn ku ne 1000 francs té kenn ku ne wax dëgg na wax dëgg waaye kenn ku ne 1000 francs taw nan ma bal kenn ku ne suñu ñu santawul ndax kenn ku ne bu sa kono so jexé dang ko jëndiwaat kenn ku ne bu sa kono so jexé légui bala une cinq minutes sa bop day tëju nga melni yow ku bokku ci aduna nga dem jënd ko ndax légui japp na ne kono so dafa mënut ñak ci dundu gi légui lu baax nak moom da mënut ñak ci dundu gi même bu dul ndaje mi sax war nga tok événement bu fekké ne ko Touba événement bu jot bo ñëwé bala nga ñibu wat nga ñëw siara ci bayla amna ño xamne mbokk yi bu ni gis bayla dañ koy laqatu ndax moy la nuy nuy jóogun Baylaat te ko xol kooku ni mu sonne won ci yow xol kooku ni mu sonne won ci yow ngir lan bëggoon rek yow nga réussir yow nga dem ba man dara diko laqatu ak diko neubatu ngir na mom kat da ngay ag mu di def nang dula la laaj bàyyilaat bàyyilaat ku ko xam xam ne dula kenn bàyyilaat ku ko xam xam ne dula kenn lim am doylo nako ko ku ragal yalla la ku bax la ku sel la kon koku luko ko defal lu defal jappal na suñu borom goko defal ndax yàlla ndax yonent moo wax ne inna lillahi ahlina fi nnaas wa ahlullahi fi nnaas hum ahlul quran wa xaasatuhu yàlla dafa am ay nit si biir nit ñi nit yàlla ñooy ñan mooy ñooñu waa Alxuraan te bàyyi laat ñëpp xam na ne si ne gën koo mën Alxuraan yombul gën baax yombul kon mbokk yi bu ñu fii nan takkuwaat man si koñ bi laa dëkk xam naa la fi dox xam naa la fi am am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne yàlla wërsëg na leen bu baax a baax a baax a baax màggal gii ñëw nañ seen tànk jaaru fi ca mille francs yi ñu laaj wala 2000 amul kenn kum të kenn kum te barke barke mi ngi rawante nag foofu barke mi ngi rawante foofu de dangay bokk bokk ni daar ji ngeen di jàngandoo mu rawoon la fuuf mu rawoon la fuuf gën naa mokkal alxuraan fuuf nga ëpp nga nga raw ko nga raw ko lu ko a mooy barke da ngaa sàkku barke te moom sàkku sàkkuwul barke. ndax moom jàpp na ne diggante ma xala xalaaxa amoon ak baylaat mooy jàngal na ko pare na si pare na si déedéet dafa am xalaaxa yu baax yoo xam ne kenn du ko dagg te alaaxa yi da see bokk mooy sa sëriñ daara nga fonk ko jox ko kon lii jàppal na yaatu na barki démb fa ma demoon donga yi ba nuy siyaare ab pàkk ab pàkk laa wax de lan jaayante jëndal ko daara ja mu bañ a génn koñ ba xoolal loolu xoolal joo jëf ju baax te tey soo ko waxoon fii nit ñi dañ koy réyal na yii loolu dafa rëy mënuñ ko ah kay ñooñu jékki-jékkiwuñ joxe ay ay ay junni déedéet ay ñaar téeméer ak téeméer lañ doon joxe. ay ñaar téeméer ak téeméer lañ doon joxe ñaar téeméer ak téeméer yooyu moo dem ba jur ay million ñu jënd ab pàkk jox ko sëriñ daara ba ne ko da ko jàngale te seen mëbën mooy bu déwénee bu ñuy seeroon tabax ko man sa la bokk hmm. kon ñun ñii amul mas amul gor amul jigen jigen ñi ak gor ñi ci am chaque fin de mois war nañu am bu bu bu bu rek ba magal ñew ndax nan bàyyi xel rek 3000 amna ci ño xamna ne dis na ci ñoom bu bëgge jek jek jékki génn ko mën naa mën ci ñom ndax ñëpp bokkuñu yam waaye dañ koy def chaque fin de mois ki lañ nak bu nga wa gedd ndax lu ne dana ko deg diw da sof diw bo gisee appelam weer da dé nangam yow bul xol loolu xolal na yow lu bax ngay def. xoolal na yow lu baax ngay def ñi nekk fii war nañoo man dem ba donga yi ci daara ji sax duñu yalwaane dund gi fii donga yi dund yëpp ñun ñi ñoo leen ko war di jox te lu lépp ab gëm-gëm la ak pas-pas ak dogu gëm-gëm la ak pas-pas ak dogu affaire yi nag amul gone amul mag amul amul ndaw kenn ku nekk comme comme sa kemtalaay kattan na nga sa sóoboo rek tuyaa ba jooj noonu nga koy amee kon yow miy gone te am pëseef doxalal mag mi amul pëseef yaacaaral bàyyi ko sa ginnaaw bul ko bàyyi xel sax te xam ne yéen daara ji dong mu leen boole woon bul nangu mu gën laa ëppale si daara ji bul nangu mu gën laa ëppale si baylaat te ñëpp si kenn sikk sa ne baylaat sampub sëriñ Saaliw la te ñëpp xam na siñ Saaliw mooy kan ñëpp xam na sëriñ Saaliw mooy kan de kon lu si waay mel rek ak fu si waay yem si yow la lu si waay mel ak lu si waay yem si yow la kon mbokk yi ngir yàlla man de Mor Diagne mën naa ne jàngiwuma si daara ji waaye samay rakk ñëpp xaaj bi fii leen mokkale alxuraan te man tamit téere yu bari si xam-xam mën naa ne bàyyi am na yu ma si te sama relation ak moom si xam-xam ba tey jii day continuer lépp lu ñuy teg ak lépp lu ñuy jaayante nan ma ko wax dinaa ko joxe. lepp luñu tek ak lepp luñu jaay nan mako wax dina ko joxe lolou sax wurtu yam vérifié ñun wa koñ bi sax ñun wa koñ bi gëm-gëm dañ ko waram ndax bàyyi laan lan lan ñu jariñ fi suñ koñ bi ku fi am doom boy tuddu bàyyi ngay wo ku fi def lu mu mën doon bàyyi ngay wo kon nak mbokk yi koku ñu am te moy mu nekk sampub Serigne saliw lolou jafé la lolou jafé la. bëriwaa na ay koñ yoo xam ne bëgg nañ ko waaye mënuñ am kon nag bu kenn yaafuus nan ndox nan góorgóorlu te xam ne lii lu baax la bis bii bu ñëwatee kenn ku ne nga dagg sa itte nga xaar ko ndax benn benn yoon dong lay doon si anam yi nekkul ñaar benn yoon lay doon si anam nag wax dëgg yàlla war ngaa mën a dagg sa benn deux heures temps sa benn trois heures temps ñëw ñëw ñëw joxe ko fii waaye am na yoo xam ne ñëfi yëfi kaanam moo leen ñor yëfi bon moo leen ñor yëfi caaxaan moo leen ñor wax naa ko fii léegi kon ñu dollee góorgóorlu bu baax a baax a baax dollee takkuwaat bu baax doolee jàpp ndaje mi te xam ne ndaje mi amul lenn lu ko gën a rëy kenn ku nekk su ñun bu sëb sëriñ wootee da ngay dem joxe fa sa addiya sëriñ baax na lool waaye nag sëriñ bu la jàngal alxuraan kenn gënu koo foor kenn ku nekk su ñun ñi ñi si ëpp waa kër Sëriñ Balla Fall jëng la addiyee ju nu joxe danañ ko fa joxe waaye xoolal demal xool suñu Balla Fall Dieng lan la la digal mooy lim la digal mooy demal nga fonk sab say waajur fonk ki lay jàngal alxuraan kon bis bi ku si feeñ moom dootoo nëbb lu si waay joxe sa bopp kese nga ko joxe yéen jigéen ñi tamit bu leen wax ne ñun ay jigéen lan amuñu déedéet donte ab téeméer la yëkkati leen ngeen joxe ko yéen ñi nga xam tamit yéen a jiite ñu ba ñu may ma tuuti ma àggale ngir yàlla bis bi. bis bi nan koy def ni waa Touba ci kanam di def mooy addi yi ñuy dajale loolu kenn dong moom moo ko war dox mu tax mooy bàyyi bàyyi laat ak daara ji buñ ci togg ak lekk buñ ci jënd am ndox mu ni naan buñ ci luy ay baas buñ ci luy ay rajo nan dajale lépp ba mu bëri ñu jox ko bàyyi laat nan dajale lépp ba mu bari ñu xool ay alliwoo xool ay am mbaar mun mën a defar xool lu mën a defar jënd ay basang indi ko daara ji. bu fekkee ak lekk akuk naan nan ko dajale suñu poste jaayante ko def ko waaye dajale ab ab xaalis bu bëree bëri ñëw noose war ko loolu amul benn njariñ nag nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax kon bu mujjee day nekk day mujj nekk puukare wu kon buñ koy defat nan xool kenn ku ne téeméer téeméer juróom fukk ñaar mooy lekk gaag naan gaag bâche yaag rajo yow waaye nag 3 millions junni yi moom bàyyi la dong la ak waa daara loolu nañ ko war di defee waaye bu fekkee nanoo danoo dajalee sunu fukki junni juróomi junni yi ñu jël ko noose ko jël juróomi junni loolu wax dëgg yàlla baax na nag waaye am na lu ko gën a baax baax na waaye am na lu ko gën a baax te mbir nag nañuy xool la ko gën a baax ñu di ko def kon man moom maa ngi nii bu dee ab groupe whatsapp la bu leen am dugal leen ma sa biir bu dee lu leen laaj la incha allahu rabbi du ma ne kenn du ma sa ëppale waaye la nit ko joxe dinaa ko joxe يالنا يال ديفال ديغك توپ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سيدا ومرسيدا وفكره النوير وقلب ارشدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غيناو بانو يالا سونو سبحانه وتعالى دي جولي يالا محمد عليه الصلاه والسلام noo ñaanal Cheikh mohammedul Muntaqa sunu borom yagal ko fi te wéral ko ba bepp yene bu maam am liggéeyal ko Cheikhul khadim mu dafe ko nu kawe njortam te ànd ko murid yak ak yépp barki alquran bu ko defee ñu maynu ak deglo ngir jëmmé seigne touba ñu bàyyi xel bu baax jotaay bi li nga xam ne moo fi dajale waaye di ñaanal Cheikh Abdou Lahad Dieng sunu boroom guddalu fanam te weral ko moom ak ay rakkam ak njabootam buñ ci tuddee Serigne Madické Serigne Cheikh Mbacké mi nga xam ne tey liggéeyub daara ji ci loxoom la tegu jàll ci serigne fallu serigne Ablaye ak serigne modou serigne modou mbake mi ci gëna don doon tank and ak ñun liggey bi té ëpp nu ci passé fuuf kon bu ko défé ñuy sante kilifa yi fi tew di abdou latif jeng di katub alquran waye di sante bu baax serigne di borom passé di ko xam ne wax na fi wax joo xam ne gis nga mbir mi amut neexal amut dara dëgg la wax ndax ñun ku nu xam xam nu ci koñ bi ñu nekkoon fi di jàng alxuraan waaye bi nu fi jógee sunu boroom defal ñu tawfiq ba liñ doon jàng fii ñu woyaat feneen di ko fa jàngalee kon dañ koy sant yàlla comme li sëñ Mor wax ne waxuma la tuubaa waaye koñ bi ku fi tudd daara ju mag di nga njëkkee ci daara Cheikh Abdou Lahad ji ndax dégg nañ ci làmmiñam mu ne lan 2000 xaw ma 2002 loolu sëñ Cheikh ah du sori année boobu waaw noonu la ko sëñ bi waxe woon kon depuis l'an 2000 ba tey ñaata donga waxuma la ñoo fi wàcce alxuraan ñaata ñoo fi mokkale alxuraan ñaata nit ñoo jàngee ci daara ji ba mokkal fi alxuraan bari na ñaata nit ñoo fi wàcce bari na loolu am na ay jamono sëñ Fallou mi bi ma joxee liste bi may liir ñi nga xam ne ñoo jaar ci daara ji ba wàcce ak ñi mokkal wallaahi ëpp nañ ñi waxuma la ñi wàcce rek waaye ñi mokkal rek jaar ci daara ji ñoo ëpp ñi te ñi nga xam ne ñoo mokkale ci daara ji boo leen doon lim di leen wàññi ñooñu tey su fekkonte ne ñaar fukk lan fukki yi teewun fi wala fukki yeeg juróom. di ñaan suñ borom mu dooli ko wér ak kàttan ba yéene jëm am ci liggéeyal alxuraan. liggéeyal ko Sëriñ tuwaata mooy liggéeyal lislaam mu àggale ko fu kawe njortam dund ba njaboot gi wootu ko ci di jéggalu bu baax nag xam naa sunu teewaay fii it li ko waral dëgg-dëgg bokk na ci it bi nga xamee ne yëg nañ ne mbokk yi bëgg nañoo taxawal bis bi sëriñ Mouhamadou jottali nu ko danoo jàpp ne bés bi ñun lañ ko taxawal noo ci war a teew ndax kenn umpalewut sunu diggante ak ab Cheikh Abdou ndax li ñuy wax ne mbokk gu nekk am na jàppal diw mbokk gii nag mën naa ne sama jàppal diw mooy Cheikh Abdou Lahad sunu sunu ànd it fam tàmbalee yàgg na lool daanaka ban ban ba ban nekk ban ban juddoo rekk la xaj na moomay mag waaye du bari waaye ca Daaru Jeng bañ fay nekk man ne fa lañ tàmbalee fépp fuñ mas a nekkit nag yàlla dogal na ñoo fa nekkandoo maak moom. kon loola lu yàgg la loo xam ne buñ demee bañ taxawal ko bis bii te suñ boroom def na cib dogalam ci sañ-sañam ak ci nameelam wa nam waroon a ma ne am kàttan ak nam waroon a mën a war a teewloo bis bi suñ borom def na loola mënu ko loola moo jàpp moo tax ma jàpp ne kon man lu ma nekk war naa koo bàyyi ñëw ngir teewal ko. ngir su su su su su ànd fu mu lu te suñ borom it def mu yàgg am ci man kóolute lool donte ne lu ne mën naa am moo ma ko gën man gën ma koo daq waaye lu mu doon rek sama xel doy na ko ci bu dee ab xam-xam lu mu mën a doon lu ma ko ca wax bu ko keneen waxoon it la ma ko wax lay jàpp lu mu mën a doon day tiimub téere sax wax dara ba mu yàgg mu woowaat ma téléphone ne ma sëñ Abdou nangam ak nangam nañu koy waxee ma ne ko ah sëñ bi loolu xam nga ne da ngay kii waaye yaa ma ko gën a xam waaye lu mu mën a doon suñ borom loola moo ko def ci moom muy lu yàgg nag loo xam ne ba mu fi gënee man sax noonu la meloon ba tey jii noonu la mel saa ñu toogee it léeg-léeg mu ne ma nangam rek laa bëgg nuñ koy defeeti ba léegi bi ma duggee ci biir rek am na masala mu ma laaj te wér na ma ne du lum umpale laaj waaye fu ma gisee rek loola moom daa nekk ci xelam moo tax ma jàpp ne kon saa buñ ko wooteelee dara fu fu mënta teew rek man war naa ko faa teewal kon loolu rek mooy mooy tànk yi moo tax bi ma ko sëñ ma ko waxee dama ne ko ban bis la mu wax ma ko ma ne ko suñ ca yegaatee su gënee jege nag ma ko fàttali ndax loolu moom sama yëf la du yëfi kenn loolu moom suñ diggante la loo xam ne day ñaan suñ borom mu sàmmal na ko mu yàgg lool waaye moom day mel ni sax sëñ ñu koo ñàkk def ndax loolu moom moo nu war suñ digganteeg moom ndax it ba mu koy man lépp lu mu dégg mu ne maa ko xewle ak lu mu mën a doon ak fu mën a doon yitte ju mu am dagg na ko ñëw ànd koog man lu nekk lu nekk it amut lenn lu muy dugg te du ko wax amut lenn lu muy dugg lu nekk rek lu muy lu lu mu bëgg a def wala nangam nangam dama ko tax lu ma ko wax rek yàlla dogal na loola moom am na am na ko sama mag sama manqué ak sama mata di moom yëgu ko gisu ko nga xam ne moom su ma doon jàpp ci moom damay jàpp ne man ci gën ki gën ci nit ñi wala ki ci raw wala ki ci sut laa doon ndax fam ma teg te xam naa ne loolu lépp yegguma fa waaye moom ak baaxam na ak ko efam loolu rek moo waral bi ñu ma waxee bis bi ma ne sëñ heure bu ngeen bëggee rek wax leen ma ma ñëw ndax loola moom ëmma ji moo ñu doon ko def sama sama kër ñoo yem wutale ma lu ma leen ni nga xamee ne bu ñu ko doon des sama buntu kër damay génne teew fa biñ koy def fii su ma ko yëgee damay ci ñëw teew bañ ko tàmbalee bay gi saa bu ñu ko defee dama yëg ko rek ñëw naa te loolu rek moo waral ñëw gi du leneen kon loolu it bala ñoo tàmbali faaw ñëw leeral ko mbooloo mi bañ xam ne teewaay bi du teewaayu lenn waaye teewaayu kóllëre goo xam ne suñ borom dana koo boole ginnaaw bi mu nu boolee ak mbokk boole la waat goo xam ne nii lu ci des wala lu ci manqué wala lu ci yolam ci man waaye du ci moom moom lam ca war a ak nam ca war a féet war a def lépp ma nga ca te du ca du ca yokki mukk fu mu toll nag ak fu mu mën a toll ak fu lu yaramam toll ak lu mu yëg-yëg rek moom am na noo xam ni moom toujours mii ngi ma koy wax mi ma koy jàppee te ñëpp xam ñu bari ci ñoom ñii xam nañ ko ndax def na ko seen kanam ñu gis kon loolu mooy kàddu yi nga xam doon nañ ko jiital di ñaan nag suñ borom mu doole ko wér bu baax a baax yëkkati ko ba mu delluwaat ci yitte ndax àdduna moom ak i tolof ak i gàllankoor ñoo ànd waaye suñ borom nag kum nattu rek dalaa nar a dimbili suñ borom it waayam rek lay nattu te sëñ Moussa Ka ne nattoo di kerkeraanu lawliyaayi ku weddi laajul xayrul anbiyaa kon ku bëgg a yéeg faaw nga ja suñ borom day am ci ay fu lay jaarale suñ borom waxoon na ne danaa leen nattu ci seeni alal seeni bakkan seen li ngeen am lépp waaye ñi nga xam ne nag nattu bi ab seet la bu may seet ba xam su ma leen ko tegee te gis ne nag la ma doon seet ci yéen mi ngi ci yéen te mooy muñ gi ak rafetal gi ak nangu gi danaa leen jox xéewal yoo xam ne ku ma ko tegul da nga da nga ñeeka ma ko teg ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صابرين موينان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون du jegeenu bu nit faatoo rek lañ ko war a wax waaye lépp lu la suñ borom teg nga xam ne ab natt la tiis la rek loola dellu suñ borom xam ne lii yàlla donga ko man moo ko sañ moo ko def te man mi mu ko teg sañ na koo teg nangu naa ko te nangu naa lim dogal loolu lay tegtale kon lépp lu dal nit ki rek te bi waxoon na ne ab jullit amut lenn lu koy dal ba ci ak dégg sax bu ko ak dégg wala lu ko mën a jam wala ab xaaxaam sax bu ca delloo ca boromam loola suñ borom yiwu rëy rëy la ko la ko cay defal kon lépp loo xam ne suñ borom teg na ko suñ ab ab jaam rek da ko nar a defal martaba boo xam ne léeg-léeg sax mu teg suñ ab jaam loo xam ne la koy waral mooy am na martaba bu mu doon yóotu wala fu mu war a yegg te foofa xañ na yegg fa mënta gaawee noonu nattu bii moo ko fay yeggale ñu teg ko ko kon loola bokk na ci li nga xam ne nattu dana waral muy teg ci kaw nit kon loolu dañ ci doolee santaat suñ borom bu baax te xam ne moom mooy faxaalun li ma mooy it kiy def lu ko neex te lii ko soob ñoo ngi koy ñaan rek mu yëkkati ko delloo ko ci wéram ba yéene ji am ci daara ji am ko ci njaboot gi suñ borom defal ko ci lu kawe njor dund ba njaboot gi wuuti ko ci. bu ko defee kàddu yit it ni suñ jaañ waxee rek daanaka mbooloo moo xam ne dañoo jóg ngir ne li leen yékkati mooy taxawal téereb suñ boroom bi taxawee ko ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa bu waxee ne ñi gën ci nit ñi. mooy ñi ki jàng ba noppi di jàngalewaat ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale yonent bi salaam nee na kooka mooy ki gën waaye ki jàng ba noppi it ni ma ko daan waxee ne daara moom suñ ko waxee ñett ko séq ñoo xam ne kenn mënta dem bàyyi sa morom ñett ñii saa ñu amul rek daara mënta am borom ki jàng alxuraan lu mu bëgg bëgg bëgg a jàngale bu amul kuy jàngalu du mën a jàngale. ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy waajur wi lu mu bëgg bëgg jàng bu amul gone mën a jàng gu ci jàng mënta jàngalu. kon ñett ñii mënuñoo jàng gone gi it kon kiy jàngale ak gone giy jàng ak kiy jàngalu ñoom ñett ñoo séq daara ñoom ñett ko ci ko ci yo xam rek mbir ma du dem ñett lañ ñoo xam ne mënuñoo ñàkkante ndax loo bëgg-bëgg jàng li ma ko wax léegi-léegi boo ubbee daara defar ko ba mel na mel doo ko moo xam da ko koo étage moo xam noo ko mën a def waaye amoo kenn ku la jox koo jàngal bu boobaa doo jàngale ki nga xam ne it yor na goneem waaye gisut kenn koy jàngale kooka ak lu mu bëgg bëgg bëgg mu jàng bu boobaa du jàng gone gi it bu amee kiy jàngale am waajur buy jàng te gone gi nanguwut a jàng ba tey du sotti ndax li gën a métti mooy yor gone gu di jàngal gone goo xam da ngaa bëgg mu jàng te gone gi defut ci xelam jàng gone gi bañ jàng moom sëñ daara yu bari moo leen di décrasé loo ndax gone gi nangu moom nga xam ne donte ne xel ma naqari na it xam nga ne nangu na li nga koy defal bëgg na ko daa mënta dem kooka da ci sonn di ko jéem a sa kem kàttan waaye ki nga xam ne moom da leer ne kii moom mën naa am xel mi naqariwut waaye daa bëggut noo ko mën a defit dalay lay won ak bañ boo xam léeg-léeg sax nga dem ba mujj nga far bëgg a bàyyi loola moo gën a métti kon loolu lépp dañuy ànd muy coono bu métti boo xam ne ku nekkut ci mbaar mi rek mënu koo mënu koo mënu koo xam moo tax benn suñ benn mbokk daar day wax ne moom li gaa yi wax ne ko man taxallamal xuraan wa allama ñu bëgg koo yaatal ne képp koy jàpp ci daara ji sax moom nee na loolu nanguwu ko ndax nee na li nekk ci biir mbaar mi mbaar mi ki ci toog gone yi wér la li ngay jànkuwante ci seen biir kooku moom mënoo yem ak keneen ak loolu waaye mën a defal yëmut ak leen léeg-léeg ngay woo genn gone di ko wax mu leer la ne kii li ngay wax bu ci defoon xelam sax mën na ko waaye day mel ni léeg-léeg day bañ te li li benn waay ne ab donga léeg-léeg dana duma sëñ daaraam duma yu métti te duma ya mooy li gën a métti mooy gone gi nga di ko jàngaloo nanguwut a jàng moo xam da nga koo taxawloo moo xam nga di ko def ba mu yàgg nga mer ne ko ñëwal tari mun la mokkal ma sëñ bi nga tang mbar mi tang nga ki lu ne nga def koko ko mo japp ne dal di seug sëñ bi fofu li nga yek kenn mënu lako netali manam day am yo xam ki ki ki ko ki ko dund rek ko mën xam waye fi ne lolu yar bu metti metti la bo xam ab sëñ ab do nga da koy dóor sëñ dara te yeguko bok na ci yoy yi yo xam mom moom waajur yi ñoo koy dóor sëñ yi nga xam ne dara yi bari yi bu ñuy ci dara wala ñuy ki ci yi la moy da nga yor ab ab donga di ci sonu lol ni ko suñ jaañ doon am ci yéene lool gis ne xel ma it neex na nga am ci pas-pas waajuram bam la ko joxee la fi nga koy mujj a gis ba mu la ko joxee nga koy mujj a gis waaye yow nga xam ne yàlla ngay liggéeyal te li nga ciy def loo ci araf woo ko xamal la ca nekk ci tuyaaba ak yiibu kenn xamul nu muy toll jazakallahu xayran nga di ci sonn mu jekki-jekki rek buy bàyyi deesu la ko yëgal buy bàyyi waajur wa du ñëw ne la damaa bëgg mu bàyyi da ngay jekki-jekki laajte ko ci gone yi ne ana diw ñun la bàyyi na bu fekkee kooko koo xam ne demoon na ba toll ci di beqi wala nangam nga amoon yaakaar ci moom jékki woo jékki am lu dul amoo ci moom lu dul jékki-jékki laajte ko ñu ne bàyyi na foofa yow bis booba moom doo doo jàngat nekkatoo yow suñ daara bi da ngay nekk ci mbaar mi rek waaye sa xol moom am na lu ci nekk loo xam ne bis bépp moom yàqu nga suñ daara yi nag loolu da cee bari te am na ci waajur ñoo xam ne sax li waa ji wax ne maanaam fañ koy jaare mooy duñ ko jaare ci buñ bëggee gone gi bàyyi dañuy bàyyi ba ak bër fii ne saa boo bëree boo wéddee rek ñaari gone yi bari duñ ñëw buñ bëggee mu bàyyi dañuy bàyyi ba mu bër rek bu bër see rek ñu jël ko yóbbu feneen bu gone yi weddi see ñëpp ngay laajte waa ana diw moomoon di daa ñëwagul xanaa ana diw ba mu yàgg nga laaj ko gone yi ko xam ñu ne ah moom de daa mel ni day liggéey wala dem na barab sàngam wala dem na barab sàngam yooyu yu yu yu métti la yoo xam ne waajur yi duñ ko seet te ñu bari nag fi mu ne daanaka jigéen ñi sax booy seet ñoo tane góor ñi ci ci ci gone yi sama benn mbokkum daar daf ma ko waxoon bi muy ubbi daara ne ma gep gone guñ fa indi ta jigen indi ko duma ko jangal mané ko kon ñi ngay jangal duñ bari dé ah kay sama jaxate jaxate ah kay <laughs> dégg nga ko kon ñi ngay jangal du bari ndax daara yi mom liñ sétlu du lenn waye jigen yi mom daanaka ñoo fa ñoy indi gone gi ñom ngay gis waye wajur yu goor yi mom ñaaré gone man na fay jang ba mokal doko ko tek a gone na fay jang ba mokal bayam doko gis boy gis yaayam ngay gis waye do gis bayam ta yoyu nit damay wax ne nit rek nga mën a jël jox ko nit doo fa jaar waaye leneen lu dul nit boo ko joxee nit du ngeen gëj a gisante tey da ngay dégg am na ñoo xam ne nañ koy laye mooy dañ la koy jox nga wax ñu ne man sëñ bi doy nga ma ci ba la ko joxee laa la ci kiiwa ndax doy nga ma ci loo ci def rek baax na moo tax du ma fi ñëw wallaahi laxasim kooka la ko jox bu la sarseeloonu ab bitig du ngeen am weer wum ñëwut taxaw ne la bitig bi nu mu demee xool njaay mi ngeen donte ne daa nekk ca réew ma it sa numéro dana ko am fu mu toll dana jokkoo ak yow di la woo fu fu fu liggéey bi dana toll dana ko xam bu yegsee bu ñibbisee Sénégal ña koy njëkk a gis yow yow mi ko yoral bitil ci ngay ci ngay bokk ñi koy njëkk a gis ci ngay bokk mu ñëw xool ba xam njaay bi nu may demee xool rek léegi ak lu mu la wóolu wóolu yow sëñ daara bi mu ne dalaa laa wóolu ba tax du ñëw ci doomam bu la dénkoon ngeen séq wàllu àdduna du la def noonu dana am sa numéro fu mu toll danay ñëw fi yow bu demee ci biti yi dana lay woo di jokkoo yow waaye bu génnee nag du leneen moo tax kon bu nee dama laa wóolu nga doy ma ci moo tax ma jox la ko leneen la waaye du ak doy kon loolu du ak doy nit ki boo ko joxee sa sa alal ma ko te li ñuy joxe lépp nag doomu aadamaa ci gën a foor ndax alal sax doomu aadamaa koy yilif kon ki nga xam ne mooy yilif alal mooy yilif lépp boo ko mënee joxe muñ ko doo fa jaar te loo joxe lu loolu doo ko mën a muñe noonu kon boo nee ak fonk la dëgg-dëgg man du ma mën a gëm ni loolu ak fonkeel la loolu ak ñàkk fonk la ak la ngay def ñàkk la te ñi noonu ñaare mooy ñi nga xam ne seen doom ndax jamono yi amna goné go xam sama dara yalla xamna na ne na ba toll ci bekk ba bekk yoonu ñaar bekk yoonu wu ba nek ci yoonu ñaarel bay bi ñëw fa ak magal la fa ñëw bima ma dama damaa timis fekk ko mu tok biñ nuyo waxtaan bam yag mu mu xamal mané mom di diiw mi mana mi de moma fi indi mané ko waaw ci naka mu ne ma mom kat dama bëggoon ndax dama dégg dama dégg mom day nekk ci koñ bi di football ak naf nangam ma bëggoon dal am amna ko ku ma bëggoon sax mu and ak mom di liggéey ak def yëf ma ne ko ah waaw lool de moom waaye ndax yow laaj nga ko fu mu toll mu ne ma déedéet ma ne ko yow gone noo koy joxe ci daara muy jàng di jàng ba moom fi ne ci daara ji boo doon seet ñi ci jàqa ñi ci gën a raw ci la bokk te suñ borom def na loxoom ñaawut te it dem na ba toll ci daanaka léegi mu bindub kaamil nga ñëw laajoo ko yow foo toll sam njàng fu mu toll jekk-jekk rek ne da nga koy yóbbu jëme loolu mooy mooy li fi nag waaye keroog waxtaan nañ maag moom waaye ba ma ko waxee di ko wax ba mu ñibbi da dema ah lii kay sëñ bi dama koo xamee wutoon nii waaye moom kay mi noonu ba léegi suñ borom def na gone ga bind na kaamil ba yóbbu ko ba del ci waat ma ngay jàng xam-xam te ma nga fa ci daal waxatul ci moom dara waaye kooka bu fekkoonte ne daa ñëw rek ne damay dem nga ne ko na dem dana ko yàqal loo xam ne te ba mu ko waxee ma ne ko nag ndax sëriñ bi da daan wax ne gone gi toll ci jàng loo ko def lu dul jàng mënu ko gone gi toll ci jàng loo ko def loo lu dul jàng mënu ko jàng rek la man am na ñoo xam nag dañ koy layoo dañuy ñëw ne la sama doom jàng nii téyel ma ko ndax moom jàng rek la man jàng dong la man am na ci ñooñ bu ñu lay wax jàng dong la man mooy fii ne moom jàng dong la man agun mënut leneen saa manee leneen nag ma jël ko waaye ginnaaw jàng dong la man moom téyel ma ko ñu mel noonu moom seen doom duñ duñu laaj fu mu tolloog am njàngam fu mu tolloog njàng mi yeex naag gaaw naag seen yoon nekkul ci loola moom daal xam nañ ne gone gi fii ne mënagul dara nekk ca teyit buñ ko bàyyee ci mbedd mi muy wëreelu loolu wóorut bu nekkee ca daara ja nag ñu leer na mi ngi ci daara ja donte ne moom jàngu fa dara waaye ma nga ca daara rek xam nañ ne taxawaalu wut loolu doy na séntu wuñ ci moom mu am xam-xam séntu wuñ ci moom mu sori lañ cey def daal mooy dañ la koy dénk ngir saa bu demee ba man dara ñu jël ko yóbbu feneen kon loolu it ba tey day lu baree bari ci daara yi la nga xam ne li li li nga ciy jànkoonteel moo tax daara moom boo ci nekkee na la ci yàlla rek dugal yàlla rek na la ca dugal loola ca fekk nga xam ne lii natt bu la sañ borom dëkk la waaye soo ca duggee ndax benn kilifa gu baax noonu na di moom óomut noppaliwut ñaar yii ku koy wut doo dem ci daara daara óomut noppalewut ku bëgg lu noppale doo doo jàngale ku bëgg lu oom doo jàngale moom óomut noppaliwut moom kere ba nga gënee jàpp ne tey jii ngay gën a noppalu tey tey nga gën a sonn rawatina nag bu dee daara joo xam ne gone yi dañuy jàng di fa toog yow moom amoo amoo alxames aju amoo ajuma daanaka saa boo demee ba soxla jat la it nga génn soo génnee sa xel du dal ndax yaa ngi bàyyi xel gone yi bu ma ñëwee lu ñuy def ndax gone yi moom saa boo leen wanee ginnaaw yow suñ daara bi lu mu gàtt gàtt gàtt boo ñëwee gis ñu def loo xam ne nii leer na ne lii dañ koo ginnaaw te mënoo ci dara nag loo wax wax wax wax wax ak lu ñu ne waaw waaw boo génnee bu ñu koy def sax ndax nag gone moom da am na lu xam du gone da koo bindoo ab yëngatu ak kii loolu daa bokk ci gone gu wér te dara dalu ko am na loo xam ne mënu ko toog rek mel ni ab istati bu ñu teg noonu ne tekki rek loolu gone mënu ko nag faaw muy am lu muy yëngu ay yëngu yu muy def léegi nag yooyu moo taxit yow foo toll daanaka dangay doon koo xam ne da ngay sax ak dëkkaw ñoom muy lu métti loo xam ne waajur yi war nañ koy bàyyi xel bu baax la ca tege nag mooy sallallahu alayhi li mu waxoon ne yow nit ki na nga doon benn ci ñeent yii te bi nga xam ne moo ci juróomeel mooy bujj juróomi mbir la waaye nee na ñeent yi fexeel ba doon ci benn boo ci doon baax na waaye ba ci mujj muy juróomeel bi nag moom moo moo moo moo ëpp doon nee fexeel ba doon borom xam-xam te mooy bi ci gën boo ko mënta doon nga doon koy jàng boo koy xamlu wala nga di leen déglu wala nga sopp leen waaye ka nga xam nag amut benn ci yooyu jàngut jàngaluwut dégluwu leen soppu leen bu ñuy wax sax da leen daa ñee soof wala ñu mu sawantal leen loola nee na booba mooy bu mujj bi nga xam ne moom ku ne war na ko moytu ndax loola ku ko def moom alku rek la cay teg alkane rek la cay tege kun aaliman aw mutahalliman aw mustamihan aw muhibban wala takunil xaamisa fa tahlik kon nee na benn ci ñeent yi boo ci doon baax na donte ne ba ca gën nag mooy ngay borom xam waaye nii ngeen defit day lu am solo ndax barab bi nga nekk ba nga fay nekk di tuut tànk moo xam sa kilifa la mu waroon a taxawee taxawe na ko wala déet waaye yow dem nga ba yëg ne am nga loo fi jëlee la nga fi jëlee it bëgg nga mu barkeel te barkeel moom barkeb xam-xam mi ngi aju ci kem na ngay màggalee kala kala ko jàngal te loolu la sëriñ bi wax sëriñ Tuubaa radiyallaahu nee na xam-xam bi barkeel bi ma nga aji ci kem na ngay màggale ki nga xam ne ci nga moo ci moo la jox xam bi ci nga ki xam ne ci moom la yàlla jore xam-xam bi jox la ko noo ko màggale ak noo ko fonk ak noo ko tegee rek sa xam-xam noonu lay noonu lay noonu lay barkeele la ngay wut ci moom nan ko koy amee te boo ko amee noonu lay barkeele ok jasaak la leen xëy dégg nga sëñ bi nee na bi xadri ijlaalika sayxika bi ma bi xadri ijlaalika sayxika tafu taxu bi ma taxonsu xam nga ko maa ngi fàtte béy wi nu mu neer waaye daal li muy wax ci olof daal mooy kem ni ngay màggale sa sëriñ rekk ci ngay làq la nga bëgg wa bihil yem na toxoos te boo ko amee it noonu lay barkeele kon barke daa doon loo xam ne kenn du ko maye sëriñ Tuubaa di anhu daa waxoon ne am na ñaar wala ñett yoo xam ne suñ borom mayewu ko da koy jaay te nee na njëgg nanguwut joxe lii dese lii njëg gi nanguwut ma avance dese lii da nga koy joxe ba mat sëkk nga door a jot ci njëgg loolu nag bokk na ci nee na alxuraan mooy mooy mooy barke nee na ñi koy joxe day yoo xam ne nii yu jafe la yu métti la te njëgg it lay loo xam suñ borom mayu ko da koy jaay tey it nee na njëgg nanguwut maa joxe lii dese lii da ngay joxe ba mat sëkk nga door a jot ci njëgg loola bokk na ci alxuraan suñ borom barke bi mu ci def faaw da ngay nangoo sonn lool waaye coono ba nga xam ne laaj na ko nanguwoo ko donte ne léegi jamono dem na ba yegg foo xam ne xañ na nañ daan jàngee soppiku na. te it loolu jamono ko laaj ku ko mën a soppi wàññiwut daña dara waaye nag am na ca yoo xam ne saa boo ko bëggee dindi rek wala nga dem ba jàpp ne sëriñ bi moom séqu leen dara lu dut araf bi daal na la ko xamal soo ko xasee xam yaag moom a yem féeteetu la fenn amatul benn ciir wala benn lenn loo ko war a tegati nee na bu boobaa nag xamal ne yow xamatoo ka nga doon saa boo jàppee ne nag sëriñ bi moom li ma doon bëgg lépp ci moom la ko suñ boroom jaare kon kii moom wala moom laay def sama kilifa dëgg-dëgg ndax sëriñ ni ko sëriñ bi waxee ne sëriñ ñett la sëriñub xamle sëriñub yare ak sëriñ bu lay yéegal sëriñ bi lay xamal nag ba nga xam li nga war a xam xam li nga war a def xam li nga war a moytu kooka moom kenn jiituwu ko ci kenn moom moo ci jiitu su la xamalee loola ba noppi nag keneen ku cay tege door caa tege kooka kilifa la goo xam ne lum mën am yow dangay xam ne kii kat suñ borom lim jaara ci moom jox la ko lu rëy la loo xam ne ci ndimbalul suñ borom nag lay amee ndaxit am na loo xam ne ak njàmbaar mayewu ko ndimbalul suñ borom la waaye wolof day wax ne ndimbal na ca fekk loxol borom kon da ngay góorgóorlu moom mu teg la ci yoon sëriñ bi dalay teg ci yoon rek yow nga nangu di góor góorlu bu ko defee nga dem waaye bu dee ki nga xam ne kat nanguwut a dem li borom benn waay waxoon ne am na ci ñoo xam ne danga leen di dimbali di leen jàppale ba da ngay yegg ci ba mel ni ku yor sa oto di puus sax teg sa loxo di puus waaye dañuy lànk di doos daas daas la koo xam ne da koo bëgg yóbbu ba di ko dimbali ba di ko puus waaye moom day mel ni far boo puusee day puus waat jëm si ci yow kooku moom kenn mënul ci mënul ci moom dara kon daara yit bu dajee ñett fay daje ki nga xam ne moom mën naa mokkal ak koo xam ne moom mënta mokkal waaye kenn ku nekk da ngay jàppe sa bopp ne man ci ñi war a mokkal laa ndax am na ñoo xam ne dañuy gungee rek waaye moom mënuñoo yegg waaye nag ginnaaw xamoo yow ka mën a yegg ak ka mënta yegg yow liy fulla mooy nga bopp boole sa bopp ci ne man ci ñiy yegg laa doon boo ca boolee sa bopp boo yeggut it da nga dem fu sori waaye boo nee ah man de xam naa ne ginnaaw am na ñu dul yegg man moom dama bokk ci ñu dul yegg rek daa teel a kii teel teel a kalaas sa bopp booba yaa xañ sa bopp te góorgóorlu moom mën naa tax boo yeggut fa ñëpp yegg it danga nga da nga yegg foofu ñu bàyyi ko xel waajur yi joxe seen doom it ñu bàyyi xel ne alxuraan du sa jógeen suñ borom ñëpp la ko jagleel daa am ñu mu ko jagleel ñu war koo mokkal am ñoo xam ne nag waru waruñu koo mokkal waaye lum néew néew nga am loo ci xam mu mënta ñàkk bu am na xam mom dañuy gungé waye dañu mokal yow booleel sa bop lay ful ak jom moy nga booleel sa bop ci man ci ñi mokal ci la bok bu ko defé lu yalla def nak lu yalla dogal na nga xamni li la yalla dogal waye yow sa doon sa positif ak sa pas-pas ak sa jublu moy nga bok ci ñi raw ndax lolu moy ak nité moy ful moy jom lepp lu lu bax da ngay jàpp man ci ñi ko wara am la waye lu bax kenn du ko jombalé sa bop lu bax lu nek da ngay man ci ñi ko wara am la waye do jàpp man waruma am ndax li mom xamna man waruma am suñ borom li muy joxe sëriñ bi waxoon na ne bul jagleel ngëneelul suñ borom bul ne ña jiitu woon rek ñoo ko mën a am léegi ñi ñëwaat ginnaaw bi moom dañuy kii rek waaye mënatuñu àgg fa ñee àggoon nee na déedéet ndax nee na léeg nga gis koo xam ne daa mujj a ñëw suñ borom jox ko loo xam ne ña fi jiitu woon amuñu ko woon doon nañ ko saaku te amuñu ko woon mu jafe ci ñoom nga gis ku mujj ñëw du ca sonne noonu suñ boroom jox ko ko te moom la sëñ bi doon misaal bay wax ne mi ngi la koy misaal ci ab taw ab taw kenn ku ne xam na taw taw wicc wiccal mësay bëndëng lañ koy wax yenn gone yi duñ ko xam waaye taw wicc wiccal ak taw waame taw wicc wiccal moom kenn ku ne xam na ne du ñoral gerte du saxal du saxal am ñax leneen waaye waame waa koy saxal waaye balaa balaa balaa indi waame faaw mu wicc wiccal tuuti ba mu yàgg mu doora a waame doora a ñëw kon loola mooy wane ne bu fekkonte ne li jiitu rek moo gën kon waame kon wicc wiccal ba moo gën waaye waame wa mu wa ñëw wa mujj ñëw moo indi ngëneel la kon noonu la it lépp lu baax da ngay jàpp ne moom bul jàpp ne maa mujj a ñëw rek kon du ma ko am ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi moo ko njëkk a waxit bi sallallahu moo ne sama xeet wi bul de kenn xamut ña njëkk ñoo gën nee na sama xeet wi bi nee sama xeet dañoo mel ni ab taw ummati kal matar nee na sama xeet wi mel ni ab taw ab taw mënoo xam njëlbeen ga moo gën wala muj ga moo gën day taw ba siwéet rek nga door a xam fa mu gën waaye mënut tàmbali rek nga xam njëlbeen gi gën wala mujj gay gën yonent bi sallallahu nee sama xeet wi it noonu la mel nee dañoo mel ni ab taw rek mënoo xam njalbeen gaa gën mënoo xam mujj gaa gën kon bul jàpp ne ña ña jiitu rek ñoo ñoo ñoo raw nañ donte ne wa saabixoon a saabixoon loolu dëgg la te wolof day wax ne ku la njëkk a reer wan na law reerin waaye wan law reerin wut man ngaa reer dàq koo reer de laay xam na loolu ah <laughs> waaw léeg-léeg na koo njëkk a reer mu ñëw mu xool ni muy reere waaye bu ñu reeree léeg-léeg nga gis ne ab laay dàq seex loolu moom mën naa nekk kon njëkk reer it téewut a reer kon loolu it nit ku nekk daal da ngay jàpp ne lu baax moom bu ko jombale sa bopp jàppal na ci ñi ko war a am nga kon xam naa ne bu fekkee wax dama mel ni ñu ngi jullita waxtu waa ngi guddi xam naa te xam ma seen programme nu muy demee kon loolu day ay kàddu yu ñu ci bëggoon a eh, kii rek bu fekkee am na lu ci jub ñoo ngi koy sant yàlla lu ci dëngit ñoo ngi koy jéggalu xam ne yéene rek la ñuy waxee ak bëgg ak noonu nu ko waxee rek di ñaan bés bi suñ borom dimb leen ngeen yàgg koo taxawee lool ay at yu baree bari yàgg koo taxawee te at mu jot ngeen di ko gën a man te daje cee ngërëmal suñu borom mi nga xam ne moo leen tax di def nag nga xam ne téeréem bii moom moo ko yoral boppam moo koy taxawal boppam te ku ko taxaw rek ci nga ko taxawee ndax suñ borom bu ne ah waaw suñ borom bu ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun nee na ñoo wàcce alxuraan te noo koy sàmm sàmm gi du ceegi ni suñ borom day wàcc ci suuf di ko sàmm waaye sàmm gi da koy jaare ci ay ay nit ñu ko manta di ko jàngale waat rek ci ñooña lay lay lay taxawee te it li yonent bi salaan waxoon ne suñ borom day am na ay ñoñ bi mu ko waxee saaba yi dañ ko laaj ne ko suñ borom numay amé ay ñooñ ak yi mu ne leen waaw ñooñ suñ borom kat moy ñooñ alcorane ñi koy jàng ko jàngale di ko ñooñ ñoy suñ ñooñ ñooñ suñ borom ci kaw suuf kon ku bëgg bok ci ñooña yi da ngay bok ci ñooñ alcorane bok ci ñooñ alcorane nak jégué nu moy jangale rek donte ne jangale mo mo ci jitu waye kiy jappalé ki jangale ba tax mu mëna jangale kiy jàngale ki ba tax mu mëna jangale ndax ka nekk ci mbarma kon faaw nga diko jox dara ndax boko joxul dara do am lum toge toogee dara amul lum toge dara be da yor ay ak njabot yor ay ay ay ay ay ay ay ay ay njaboot lala war ci sa njaboot gi mu war ko ci njabootam mu yor ay soxna yor ay doom war leen a dundal war leen a yor war leen a taxawu su taxawee ci mbaar mi di jàngale jàngale kenn ku nekk sa doom yow la suñ borom sart nga jàngal ko yar ko teg ko ci diine lu ca manqué yow la ko suñ borom di laaj loola nag soo ko mënut sañ ngaa wut ku ko man mu defal la ko ka ko man nag soo koy defal la nga war la lay tax mu mën a def loola yow jaa ko war a def te lay tax mu mu mën a def loola mooy nga féete ko fa nga ko war a di ko jox loo xam ne dana tax la ngay wuti ci àll ba yow ba mën a yor sa njaboot moom fii mu toog mu am ko ba mën a yor njaboot gi mën a wéyee njàng mi waaye bu dee loola doog ko jox moom bu toogee ba mu yàgg dara ñëwut tam yor ak njabootam war leen a dundal dana fa bàyyi mbaar ma dem wuti lum jox ak njabootam te bu boobaa gone yi duñ jàngati te boobaa bul jàpp ne responsable bi bor sëñ daara bi la déedéet yow waajur wi la ndax sa doom yaa ko war a yor yaa ko war a jàngal sëñ daara bi moom doomam la war a yar war koo jàngal war a dundal ak njabootam soo ñëwee jox ko sa doom ne ko jàngalal ma sama doom ji te yaa ko waroon a jàngal mënoo ko la cee tege mooy la sëñ daara bi war a mën a am ba ba toog ba mën a jàngal gone gi yaa ko war a jox soo ko loolu sëñ daara ba bàyyi fa daara ja dem nag bu boobaa bul jàpp ne yow jaan wàcc da waaye yow sa jaan wàccut jaani sëñ daara jay wàcc ndax mën da ñàkk a dundal kon dana dem wuti lu mu leen dundali yow mi ko jox sa njaboot te joxoo ko toogee nag yow yaa yow la sa jaan wàccut yow la yaa ca des kon loola faw ñu bàyyi ko xel bu baax baax ba nga xam ne waajur wi lu mu néew néew kim bàyyi ci mbaar mi nay wut lu mu ko jox lu tax mu mën a toog ba lam war a mut yi du ko na ndax benn waaye daa ñëw ci daara ji di seet si doomam ñëw fekku fi sëñ daara bi mu ne sëñ daara yi nii la ñuy def rek ñoom duñ jàngale dara dañuy taxawaat rek bu ñëwee dajale gone yi fii te du saa boo ñëwee doon fekk sëñ daara bi ne ko yow weer wu dee loo may jox mu sëgg mu ne ko man sama njaboot gi ku leen war a dundal ah sama njaboot gi maa leen war a dundal te joxoo ma lu leen dundalee damay toog fii rek sa kër ku fa ñëwoon du la fa fekk waxtu liggey ku ñew sa kër du la fekk man damay tok fi rek sama njabot buñ liñ war war duma am lu ma ko jox ma tok rek ni ma mbar mi laal boba du soti kon nañ bayyi xel lol ne kon suñ daara bi it la nga war lok mom day ci def sa kem katan ndax moy ndax jangal sa dom mom warut suñ daara bi yar sa dom ak jangal ko tek ko ci yoon yow la war boko mënut sañ nga wuti kula ko defal nga kula ko defal waye kala ko defal nag la nga lok mom ba tax mu mën def lola yow ya ko wara def soko defun nak nag kon no ngi wàcce kaddu yi fofu di jéglu bu amé lu ci jub dal no ngi sant yalla lu ci dëng nak ñu xamné al alwa ji daa guddut lamiñ bi leerut ño ngi jéglu bu baax wa axiru daxwaana anil hamdulillahi rabbil alamin الذي في كل لزهر وفي سفر أماني على ماهن مع الحبس وأسفر